sarihatu mooy juróomi ponk yi lislaam mooy tawxiid tawxiid nag xam yàlla koy maye waaw moo tax nag cosaanal lislaam mu ngoog mooy tawxiid kon Cheikh Moussa daa ñëw delloo mbir ma ca fam sose te it ni ma koy ci njëlbeen am na ñoo xam ne xëy na seytaane mut seen xel waaye déglu wuñ waaye bu ñu amoon xel déglu ay waxam xool ay jëfam xool ay melokaanam su boobaa rek dañ ko mën a nangul lu wax ji bari bari bari genn kàddu la joxe mooy laa illaa ilaha la waaw taalibi kurus yi ñu yor yépp benn baat lañ leen ci tudd la mooy laa ilaha illallah su ko neexee su bokkul xanaa baqiyatu saalihaat mooy subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar comme ni nasee kut gi te baat yooyu leen mooy baqiyatu saalihaat te dégg nga ne ko téere wa xayrun min addunia maa fiha moo gën àddina li ci biiram yonent nee na xayrun min addunia maa fiha moo gën àddina li ci biiram foofu it taxaw seetlu baax na fa ñu baree bari dañ koy tuumaal ne duñ la julli duñ la woor duñ la nangam duñ la nangam dañu jàpp ne sëriñ bee ko digle subhanallah muy digle luy tere lu yàlla digle mos nañu toog benn bis benn bi ñëw ñu waxtaan mu waxtaan sami na ko ndax mën naa bàyyi julli sama kanam te Musaa ne ko de duma ko digal kenn du ma ko digal kenn kon ku jàpp ne moo ko digle moo waxal boppam ne du ko digal kenn kon du ko digle tax danaa di wax ni samuta gor la jullit la taalibeeb sëñ Tuubaa lu ko nit mën a joxañ tudd lii tuuma la ju tegul fenn bi nga ne aslamtu nafsi mu nangu la ko ba noppi daf ne dagg naa kurus gi soo jullee ba noppi la wax soo jullee ba noppi defal baat yii subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar ñaar ko juróom laa xawla wala quwwata illa billahi alhamdulilah soo jullee ba noppi la wax de ah waa léegi nag kon naka la ñu wax ne kon julli bokk ci dañu waxee ne moom moo ne julli baaxut te kur gi nii lañ ko nasee te yow mi ki la koy jotti li nga xam ne xëy na mooy sa Cheikh Moussa yow baat yooyu bu la ko joxee ba noppi lii la ko war a waxee ndax noonu lañ ko ko waxee woon boo julee ba noppi defal dog bii gis nga suñ ko miinaloon nit ñi ñu di ko dégg ñu leen ko wax dañ bàyyi xel julli waaye duñ ca jaara yow xam nañoo sax nas boobu daanaka duñ ko nas sax far dama yow rek ci baat bi dama yow taw ji rek bàyyi la ci daw tey loolu baax na naam waaye day tax jàmm waaja bàyyi lu baree baree bari lu maroon a def weddi koy nag teg bu fekkoon da ko bàyyi sax xëy na waaye du ko bàyyi ba noppi te bonal ko ña koy def itam mu di leen xàkkasaa di leen bonal bay leen dëkkaloo sax safara ok soo jullu baal ñuy julli julli rek nga yaakaar li nga yaakaar te bàyyi ne ak lañ yaakaar te nga xam ne dooy yàlla ñoom duñ yàlla yàlla leen boole moom te defaloo yàlla dara it nag lu jar mu dugal dina defalul yàlla dara it moom lu xaq sa du tax mu dugg ko safara yàlla coobaram lay doxee